وجعت لله حمدا وكرمني مصطفى وبه mbokk julli di mbokk taalibe bu ngeen dégloo xasida gii di wajjahtu lillahi hamdan mi sëriñ Tuubaa bi ndewoon ca wéetaay ga dis nag tàgg yonent bi sallallahu alayhi moom la leen Cheikh Abdoul Ahad Diouf di jàngkat bu mag indil si wàccaayu màggal Tuubaa ànd si ak sponsor bii di waa Sénico ñi nga xamante ni ñoo ngi leen ràññee si dimbali daara ak it taxaw ñooñub daara wajjahtu lillahi hamdan wa karramani ah mbokku taalibe jàppal ni sortie bi ñaari single lay doon ginnaaw wa jaxtu lillahi hamdan Cheikh Abdoulahat Diouf jàng tamit wolofal Serigne Moussa Ka bii ñu duppee Njuñ Njaay di si nag xamle Serigne Touba melokaan yaag jikko yu baax ya borom màggalu Touba gi du man maa jëlam fi lang lu mbaa dama ni mbokk naka ñëpp waajal spécial safar lay doon ànd seeg Cheikh Abdou Lahad di jàngkat bu ñëpp ràññee si àdduna wërngal këpp te jàng mu sell ma baat bu neex ba ak it yar ak ba mu làmbool. gulom seet taxul baadim joola ànd seeg waa Sénico ñiy yàgg di jàppale daara ak ñooñu daara jëm nag ci màggal Touba bu ngeen si bëggee ay renseignements mën ngeen woote si 77 571 74 10 77 571 74 10 wala si 77 642 27 26 77 642 27 26. seeta